téléspectateur Equivox TV yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag dañoo xëyey am benn gan boo xam ne gan gu màgg la ah mu jóge Saint-Louis du Sénégal ñëw ba Equivox seet si ñu ñu koy wax Boy Guet Ndar yaakaar naa ne ku ne xam na ko ci ay jaar-jaaram ci làmb ci lim ci jot a def si bëree macha allah saf xorom trop léegi nag mu nekk promoteur nekk fa nga xam ne nii moom mooy Saint-Louis fa tëgg ay làmb ginnaaw bi mu bàyyee làmb tey nag mu ñëw seet si ah comme nag ko tool ñooy nekk yaakaar naa ne ñun ci làmb la ñuy ne muy Vox Arena ak Equivox tey kii bu ñuy seet si ñu ñu koy wax ahlan wa sahlan mbër maa ngi lay nuyu di la ziar. <coughs> waaw jërëjëf Babacar en wusu bi daal ci tànn rek yi. yëkkatil micro bi. waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla julli sangu sange Seydina Mohamed. Mhm. sant suñu ñaari waajur. Mhm. ñu ngi nuyu Serigne Touba Serigne wasiira suma Serigne maa ngi nii bu baax di nuyu Serigne Cheikh Abdou Latif. Mhm. di nuyu sëñ Isaaxa. di nuyu waa Ndar yëpp di jaaral ñu yëpp si monsieur le maire. Mansour Faye mm-hmm. te nuyu baax di nuyu waa Guet Ndar suma quartier fi ma yeewoo mm-hmm. nuyu waa Yaraax nuyu adduna bi yëpp mm-hmm. nuyu suma idol Abdou Aziz Ndiaye maa ngi nuyu baax di nuyu Baye Ndiaye di nuyu Masata suma xarit suma doomu ndey Balla Gaye 2 da nga naa demoon màgg ziare moo rafet Balla nit ku baax a a baax la Balla lay fay quoi man damay wax ni Sénégal bu dee promoteur Aziz Ndiaye laa si xam xam këram Aziz Aziz bu dee mbëri Balla Gaye laa si xam këram point ñii rek nga ci xam xam naa ñëpp Modou Lo giri ñëpp samay waay nanu waaw di nuyu waa groupe Dekki Lamb yëpp mhm. président bi Gris Bordeaux Lassana les deux ñëpp mhm. ak Konaté di bi Europe mhm. mais daal ñooy daal laa fi amal relation waaw am na solo léegi dinañ si ñëw gendaar da ngay aj micro bi téye ko norme comme ni ma ko def nii defe naa dana gën a baax mm, dana gën a alaa daw me ñuy ñaanal Serigne Mountakha ni ñu ko wax yàlla na fi yàgg lool te wér mm. di ko ñaanal Serigne Babacar Sy Mansour ak bépp xalifa bu ne ci réew mi rek ak suñ mbokk ah, chrétien ya ah. ah. waaw sama turandoo man nag man nag Ndiol Fouta mu maam da baax si dama ko ku baax mm. dëggu lool mën a jàngale macha allah yàlla na gudd fan di nuyu magam maam Maodo Sy mu maam da baax ak xalif ak euh, njaboot gi yëpp mais Guet Ndar dañuy continuer damay ñëw ak yow tey ci loo xam ne nii maanaam il faut nga wax téléspectateur Equivox yi Boy Guet Ndar mooy kan booy Guet Ndar ci làmb ji ñaata combat la ci def ak kañ la bàyyi làmb waaw jërëjëf di nuyu aussi waa Equi Equi Equivox ah. waaw waaw Equivox di nuyu waa Equivox. Equivox Equivox day dem. ah kenn du leen téye parce que place bi dafa lix. micro yi nice caméra yi nice technicien yi gàntal xam Equivox daal ci kaw ci kanam quoi. looloo leer incha allah affaire bi Equivox la. Eh, kese Equivox euh, Equivox. Euh, ok atia <laughs> léegi booy gën ndar ah, ñaata combat nga jot a bëri. non man sept combat la bëri. ñaata victoire. cinq combat cinq cinq victoire deux défaites. deux défaites. Mm. ban année nga bàyyi bëri. non man man mi bàyyi bëri yàggul ah. Mm. maa ngi toll ay cinq six ans rek. ban combat moo la gën a marqué ci sa carrière. sama ak Tony ma ngi tegal seize. guy Ama Baldé. Mm, yaa ak Tony waaw Tony moo topp moo doon poulet sans moo doon poulet sans caisse quoi. ok toppoon sans caisse waaw. da nga ko da nga ko tegal sées. non da nga ko xeex merci biti boo déggee béykat mi naan Tony moo war a régler moom combat bi. waaw combat bi mu sànni si air bi noonu. dama koy moytu waaw waaw nga koy moytu muy xeex rek. te dóorul ah, dara voilà voilà. xam nga rek ah béykat si la sànni si air bi noonu rek. sànni si air bi xam nga rek ñun dara ma dana bëri ay FM. waaw dama gën a xam parce que laa ko toogal sées mu dëgër. ko sës. sànni <laughs> <laughs> kii mooy Guet Ndar noo stress la moom. Ah, happiness ah.

Ah. mais foog mu aaral noonu daanu wër stade bi noonu xam nga xam nga Sénégal jëm kanam quoi. bi ngay bàyyi lamb sa carrière moo jeex wala. non non man suma yaay moom tere lamb. waaw ah. ah, dafa jëm mag ba nii nii muy ñëw Dakar nii ma wóorul Dakar ko fa bi parce que ñaan waajur mooy lépp. Mhm. waaw suñu borom moo la moo ne ma mu ndawul man ko naa mënul bëgg nga bëre. ma mhm. boo bàyyi bëre di nga am leneen lu gën bëre li ma ko incha xam naa dina parce que ñaanu waajur mooy mooy loolu la léegi nga nekk promoteur lu tax nga nekk promoteur waaw ah, parce que ndar dama gis ne dafa manqué promoteur maxu nekk nuyu baax suma mag mhm. mhm. ñëpp la vraiment ma xooli ndar amul promoteur en même temps ma fa nekkul ko mbër di ñëw Dakar di ak naaru sokaas ah, ndoomu ndar la aussi nekk fii si igiri cosaan xam si cosaan xam nga ma ni daal xam nga foo mu jóg jàppale booy quoi parce ndar dëkku jàmbaar la mhm. xam nga mooy première capitale di seen bi mhm. di mel noonu waruñu ñàkk promoteur waruñu ñàkk mbër mhm. moo tax ma ne daan naa jaayante pour ndar am promoteur quoi loolu si dugal la ah, xam nga si góorgóorlu baax nag waaw ñaata journée nga fa tëgg drapeau mari ñaan mari ñaan waaw waaw ci laa tuddoon Bécaye Mbaye beneen drapeau bi quoi xam bis ma tudd ko drapeau bi paase mu tuddoo woon drapeau Eva Tra benn bu TFM. Eva Tra waaw. waaw ak euh, Laroumar gis drapeau la woon quoi. mais bu baax. Mhm. di gën a wàndal bu baax nag fu ma déggee a ñëw dëgg tike vraiment. Mhm. stade Madou fa njëkk a tëgg lamb. yaa fa njëkk a tëgg lamb. maa fa njëkk mhm. tëgg nga fa si Assane Ndiaye tëgg euh, Mbébé Diène ak Dakar. ak waaw euh, waaw si la si la Macky Sall joxe décret pour ñu arrêté affaire bu baax. kon daal yaa ngi doxal ndar lamb ja macha allah. non bu bi maa ngi waajal waxoon naa parrain bi yëpp parrain mhm. a mhm. a baax te yow en tant que promoteur boo xam a tëgg mhm. loolu lu mu la yàqal non yàqul ma dara parce que yàlla lu mu def moo gën waa julli léppam yiw la jullit bu gëm yàlla wax ne julli bu gëm yàlla gëm yàlla gëm yonte bi léppam lu ñëw yiw la mais si kaw nga muñ ko nag ndax inna allaha ma sabirin waaw

yaa ma yaa ma wax ne ma tegal max bi. te sëriñ la. xam nga mu jëbal si moom jox sama lépp mu nekk baax nag suma xarit. su nekk Mbàkke balaa si ñaan na may wax sama sant lay jaar. ndeysaan barke alxuraan. avant mu nekk xalifa la jëbal si moom. Hmm. te ni mu mel noonu avant nekk xalifa ba léegi noonu la mel. kon ñu xam ne ñooy maanaam Paul du leen soppi daal ñoom yàlla kese naan. micro waaw ñoom yàlla kese raxul raxul dara ma ngi ziar bu baax. Hmm. Hmm. ko man ma ko bëgg waaw parce que alxuraan dama gis am waxtaanam. Mhm. du génn alxuraan ak sunna. Mhm. te léeg dana wax ba bàyyi du tudd du tudd Alaaji Abdu. way juram. waaw. dëgg la dama ma seeraan seen TV. Mhm. am ñu ñëw si moom mu leen ñaanal yàlla ay élèves. yàgg na. si laa ko marqué ba léegi boo yooyu. dëgg mu leen yéen ñii ñëw pour ma ñaanal leen te laay waxee li ñëpp koy ñaanal leen. waaw am ngeen seen ñaari waajur ba pare. ba pare waaw surtout loolu. barke alxuraan si laa ko jàppee ba léegi. mu leen bu ñu amul seen ngeen waajur sama ñaan mënu si yéen dara dëgg la Ndiol Fouta mu ñu mel noonu nga xam ne ñii yàlla kese noonu. kese ñu bokkul ñee ñee woo nit seen seen bopp. ñu seen intérêt daal. seen intérêt bopp. macha allah loolu lañ soxla ci kilifa. sant yàlla bu baax yàlla na fi yàgg te wér. amiin amiin am na solo macha allah. mais léegi tey làmb ji depuis boobu ba tey doon te yow rek comme ni nga ko waxee. Mm. mais tamit ku nekk gis na ne corona bi tëj na làmb ji. promoteurs yi kenn doxaleetul. Mm. mbër yi bëreetuñu gis nañ fi génn mbër yi génn nañ wax. promoteurs yi ñëpp di wax boobu ba tey làmb amul yow loolu noo ko gisee Guet Ndar waa xam nga Babacar. waxtaan wax dëgg si mooy li ma la wax nii rek natt bu ñëwee da ngay nangu. ma si mbaam mbaam xam nga xam dafa araam. mbaam waaw xam nga dafa araam. si jullit waaw pour mais boo gisul loo lekk man nga lekk. Hmm. waaw. ok ngantal mort dagan na. ok mooy lii rek nii nan nan nan gëm yàlla te yàlla jeexal ko. Hmm. mais làmb affaire coow la làmb affaire bayra ñëpp yëg stade bi fees ñun ku mel ne ku mel ne man de ci may tudde làmb. Hmm. politicien lay nekk parce que amoo moyen. ba ñoom Aziz Ndiaye gi Gaston Mbengue ak ñooñu Pape Fall xëy na am na moyen pour def ay li ñu tuddee perte bu la xaw mais bu dee ñun ñi xam ne maanaam pare ñoo ñuy dimbali. Hmm. te ko xam ne politicien bëggul sedd. foog mu xumbu gars yi ñëw kaar ñëw tàllal loxo yi noonu xam ci kii mooy diw yooyu xam nga nan mu ñëw ba liggéey ak ñu tëgg ñu tëgg suñu tëgg. kon yow lambi week lu àndoo ci. non waxuma ànduma si mais dama ni bu dee ñun ku mel yow mënoo ko daal. voilà te banaan si de. Ah. ah lamb coow la ñu doon babs. waaw loolu may coow tey foo tur ñu babs babs non bab parce que aw ma coow ak wax yow moo yokk waaye am coow am na ko coow bu a da nga lambee non parce may taqale mais boo ko daal yow kon yow fi mu nekk nii moom yow leer na yow moom ak lu coow li bëri bëri yow moom xalaatoo def yow viclo moom yow non non non xalaatu xalaatu man daa dama toog xaar rek quoi vraiment am naa droit nag wax sama doléance waaw waaw xam naa xëy na bu ñu jaaxle émission bi. Mhm. naa woo woo ñi ma waroon woo ñu jàpp si. pour ñu jàpp ci. waaw mais nii nii moom vraiment wii ko la moom parce duggee xëy ni Aziz Ndiaye de pare nañ pour seen mbër wii kilo quoi. non non ñu am pare na pour def am na bi. Hmm. Aziz Ndiaye am na naa daan nekk ku baax may fàttali bu yàggul rek bu demee TFM si Youssou Ndour yàgg yàgg na mi yàgg na mi soog a jóg noonu. waaw te yu Youssou Ndour nga doo ko réccu. ok ah, xoolal tey sant yàlla man mooy sama idole Aziz Ndiaye. loo gis ci moom ba bëgg ko ba def ko. voilà dama tëgg sama ñaari combat sama moo ko tëgg. sa combat ak Tony moo ko tëgg. sama combat ak Baye Ndiaye bu caaro yi léegi mi defe naa mi ngi. waaw léegi militaire français. waaw moo ko Aziz Ndiaye moo ko tëgg. ma bëree ba pare sama combat ak Baye Ndiaye signé contrat. Mhm. am lu ma dig. ok waaw ni ma boo bëree pare naa am lu ma la jox. ok te léegi li gën a si adduna bi mooy wax dëgg Seydina Muhammad sama sang yi ma mas toog ak saaba yi nii mhm. am benn arab sax ñëw si moom nekk est-ce que julli fen dama juum te julli dina naan sàngara bu ñu ko waaw islam mi ngi si néegam tëddu maanaam yu bon yëpp mun julli mën def mais tekkiwul yooyu da nga koy def de mhm. boo ko yooyu boo ko defee boo jégal yàlla yàlla jégal la lu mhm. dëgg waaw yàlla bàkkaar yëpp lay jégale bu dul bàkkaar bokkaale mais bi ko waajee ne est-ce que julli dana fen sàngara dafa jóg toog ma yeneen yeneen question yi dafa tëddoon di wax ak waaj di wax waaw mais bu ne julli dafa fen dafa jóg toog pour jox pour jox importance fen wax bi voilà ne ko déedéet julli du fen ñu tey fu mu toll nga wax ni mu leer ñu kii li nga wax moom doo ko def hmm. lu doy waar la ñu bëree ba pare mo ma woo ko ma woo Mbaye Diagne jox ko li mu wallaay jox ko jox wax la mu defoon voilà xam nga ñu mel noonu da ngay xam ni maam nii daa ko jàpp si benn action xam nga ni mën na mooy yàlla mooy yàlla mooy yàlla bay waa génn àdduna daf benn jàmm yàlla bu ndaw rek yàlla jégal ko bàkkaaram yëpp loolu ko àjjana kon Aziz wax boobu nga ko jàppee jëf jooju non ak ak ak ak gëm boppam liggéey la ma neex la daal dama ko naw ma gën neexati mooy fonk sama sa mbër. Balla man ak moom Balla mooy sama mbër maay mbërëm. Balla Gaye 2. waaw ah Balla mel ni liiru jaan ay mbërëm. non non liiru jaan léegi la ñëw nii xam nga liiru moom dama koy nuyu au ah. ku baax la sama combat bi tëggoon euh, nu mu di kii bépp kii Ali Ali 2. waaw euh, mooy may sibile dara bu Ahmed Fall Baraye waaw boobu ndar la woon si teg mhm. Marakaana waaw avant muy dem stade mhm. boobu liiru ñëw Alioune Seye 2 ma ngi nuyu ku baax ku baax mhm. Alioune Seye 2 Alioune Seye 2 waaw vraiment ku baax la baax maa ngi nuyu baax boobu liiru ñëw na ndar ñëw na ndar xam nga vraiment bala sax waroon ñëw boobu mais mi noo waaj a benn tournée Casamance am quoi ok mais bala lu tax tamit nga choisir ko comme sa mbër comme li ma la laaj voilà xam nga euh, Babacar hmm. mooy li ma waxoon sànq damay suñu waat yàlla xool lay fay hmm. te booy tànn xarit da ngay xool bu baax ki ngay tànn hmm. parce que jukko mooy nit ok maanaam Balla dama ko xool baax gis nañ ni bu wax di jooy nii rek. Hmm. xam na nit ko baax la. ok yow Balla bu bëree yow bëri na soo si gi xool la nii. ok te këram boo fa demee amul frontière bu bañ a rek man bu bañ a këram da ngay gis. naajement sama gis Mansour wax expliqué nga te amaa yow nëbboo. Hmm. dama damay fajal soxla. Balla. barke Alxuraanu Karim. day faj say soxla. mama Seydina ilaa bi ma alib naa. Hmm. nit ku nekk li nga xam si moom ngay seeti si moom Balla jarul ma fenn sama bàmmeel moo gën a Balla ngay dégg foofu mais nit ku baax la. ah loolu baax da ngay wax. man lam yaskuru naas ko nee na su bu leen lu baax nga tëb baax nga defal lu baax yow mu mhm. bàyyi def dem sant mhm. ba pare soo ko maa ku baax la maa la wax loolu saxaluma tàngal mais damay wax dëgg baax nit du kese la maa ngi nuyu bu baax di ko ñaanal jàmm mm. di mm. naa di na bàll parce que xol xol moo rafet na leneen mu bëgg a jàllale. waaw bu ñu jeexal naa ko jàllale waale. nga dama ñëw fii Dakar fii ku xool damay sonn Babacar. da ngay sonn boo fi ñëwee. Balla Gaye 2 Aziz Ndiaye Wally Seck ñoom ñaay cité su ma ñëwee Dakar damay sonn Mbabacar. Ah. waaw da ngay dugg super wala taxi nga gis sama hôtel ba taxi yooyu. léegi loo bëgg yow loo bëgg a wax foofu. waaw mais ma ñëw rek. Ah. man man damaa dugg super temps sama voyage bële ma ñëwoon. waaw ah. wala wala car dem Colobane wala Castor. mais da ngay dugg super xool kii ma xool la nga xool kii kii xool la grand mais mais da sonn si si moo métti doo nekk à boo bëgg nag en tant que Aziz Ndiaye sama waay la ku baax la maam bu waay manal bu ma ñëwee Dakar sama oto bu baax ñu waat jënd ma solo. ngay ñaan oto nii ak. Aziz Ndiaye laay ñaan oto en direct ak Wally Seck laxatuma man booy Guet Ndar du ma du ma tàllal loxo du ma saraxu kenn mais am naa droit wax sama bëgg-bëgg. waaw ah, lii du tàllal loxo nii. waaw non non waxin la wala du tàllal loxo adduna kenn xëyul rek nekk dara. dëgg la ku jàppale. ok waaye da nga jàppale. waaw Aziz Ndiaye da jàppale. ba tey ñuy dimbaliwaatee. moo tax nga bëgg ñu dimbali la moo bëgg ñu dimbali moom may benn oto bu may bu may bu dox samay mission rek yaa ma gën a xam kon daal fi mu nekk nii oto bi daal moom ña ñaar ñii daal nga ko demandé wala ñett waaw waaw ñoom ñaar daal laa ko demandé pour mm-hmm. bi am na la di yàlla mii ma gën ag xam dafa am bis mu def système bu waaw mu ma di bëri ñëw fa man ma demoon fa ma si margaan sax moom évité woon ñoom ak ñoo dend nii. mais bu Wally ñëwee surtout nag may taxaw ni dugg nii quoi. Mhm. mais gardien yi gerte gerte nii mhm. ma sëñ ni ma eh genn dara ñu gaa ñu gaa yi ko. ok barke alxuraan mi ngi may seetaan. Mhm. si laa xam ne xam nga nit mooy li ma wax sànq Babs. xam nit dafa am lu koy jëpp yëg nit mooy nit. fii lu waaye mën am si adduna yow la concerné. moo mais yëg nit mu am solo. mu am solo waaw. ma laaj léegi lamba ji kan moo ci dàq bëri. lamba ji Balla Gaye 2 moo ci dàq bëri Babacar est-ce que du sëg bëgg tax ngay wax. waaw Baba voilà Mbaye Guèye Mbaye Guèye. daanaka de face waaw waaw loolu la wax. waaw ndaanaan la de moom ci li yi wax. loolu la wax Balla Gaye démb dàq boobu keneen keneen noonu xam nga Sénégal léeg-léeg dañu mere nit loo xam ne jarul mere Balla Gaye dë dàq bëri Modou Lo teewul Modou Lo nekk mooy mooy war a saa ren tey te yàgg na fii fii nit nekk si làmb plafond champion la mais Balla maanaam mbërëngal la. Hmm. parce que na ma ko dëgg yàlla tax na ma ko dëgg yàlla yërëm nit ku mën a bëri bëri bëri mais daan di taxul taxul nga danga taxul bëri. ok Messi mu tax ko bi. daaw lu ko lu ko kii lu ko kii door Bayern na. huit huit xaw ma. pourtant pourtant mu tax ko ci monde bi. Hmm. daanu kii mais bal xam ne daanal la. Hmm. champion tey amul stress. Hmm. Mbal may fàttali bi muy ma ngay seeti yàggul muy waaj bu bëri tey tamit. beneen man médicateur la woon ma dem fa nii six heures sept heures te moom war a bëri ay pile de un mois combat ah. war a war a war taxaw parce que axuraan moom tey mais mais dafa mën la am combat loolu am solo ci mbër bis doo koy man maanaam bëri bi Dakar maanaam maanaam fajar laa ndar laa xëyee ñëw laa am solo du yenu bis. du yenu bés daal pour yow. voilà mais ñëw yenu bis di nga dem ak moom combat la tiit naa si parce que booy faral ku mel ne ku man ku mel ne Balla xam moom du tiit. mais daal Ronto Masago Balla ngay daan nga jël bu set wecc. Ronto Masago Balla ay waaw mais nag làmb la. ok li nga bëgg ak li am bokkul. waaw loolu day am na moom ku nekk amatu daa wax nii li la bëgg mais yàlla mooy dogal. yàlla ay dogal. waaw ah, mais Ronto Balla daan nga jël bu nice. Reug bi fan yi non Reug Reug di ko bëggee rek sama mbokkum lébu boobu. Hmm. waaw xam nga ku wax adduna bi yëpp mais mi ngi sigal yi waaw parce que xam nga dafa am benn bët bu leen nit ñi di xoolee ok te ñu nekk ay jàmbaar dund seen ñàkk. Mhm. waaw moo lu tàllal loxo nii may ma. ok waaw may nuy waa Ndar bu baax Babacar. Mhm. man dama fier pour nekk ndaw bu Guet Ndar. da nga ci fier. waaw te boo demee Ndar léegi fan yii gaal demul géej. Mhm. mais bu biir setee Ndar yëpp dañuy waa jaar ci kaw po bi di dem. ok jàmmalaay mooy fi gaal di teer. ok parce que Ndar benn benn entreprise la mooy mooy jàmmalaay. amul usine amul dara ah usine glace. wala usine moka te yooyu bu jën amul du dox. kon waa Guet Ndar dama leen kon dama leen bëggee bu baax a baax mhm. Mansour Faye fa ni wax naka si affaire amoon foofu bu ñu taalee biisu benn wax naka nit Guet Ndar moo yor Ndar parce moo yor kii wu Ndar bu jën amee Ndar lépp ay ñëpp koy yëg ñëppay dox benn fi laa tourné bu teeree rek Ndar ñëpp dañoo xam Ndar tey gaal teer rek benn fi laa tourné benn fi laa tourné parce que léeg gaal tan gaal dañuy teer sant yàlla liggéey jàmm yàlla dana xam ñu liggéey jàmm yàlla